nationale toutes les équipes ici présentes pour la diligence, pour les efforts réunis qui ont permis en tout cas de sauver le maximum de vies Et nous avons constaté l'état du bus. Effectivement, euh, nous avons commencé par euh, présenter déplorer, mais aussi apporter toute notre compassion aux blessés graves comme les autres. Euh, nous le gouvernement et toutes les équipes ici présentes pour la diligence, pour les efforts réunis qui ont permis en tout cas de sauver le maximum constaté l'état du bus, effectivement, euh, nous avons réussi à ce qu'on appelle la limitation de vitesse. ñu installé ko ci lu dinañu fexe ba chauffeurs yi ni ñu surchargé seen tableau de bord yi. gadget yu ne ñu def ci. dinañ ko interdire te dinañ ci génn note bu ko defee ñi nga xam ne ñoo yor contrôle routier bàyyi ci xel.